ay alaykum aduna assalamu alaykum senegal Senegal alaykum kep ko xamanteni tabaraka allah yaangi safo li nga xamanteni nyunglendu Elvision media ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen ñaanal jamm te diko saaku ci yeen comme li leen ko waxe won e eh, gis ngeen nak li nga xamanteni si mom la sunu ya jaratu lobe ndaw sandeene aram faxa borom du kuman li nga xamanteni tabaraka allah mom la ubbe bis bu reey bi nga xamanteni mom lañuy wacc eh, muy le 25 décembre fele ci eh, terrain sikap mbaw muy terrain basket donc nak ñu war fa organiser li nga xamanteni tabaraka allah modi di d'or and ci ak kan? ak Karbala ak équipe nga xamante ni tabarkaala moom la ci àndal laataa loolu tabarkaala euh, balaa ñuy dem ci loolu am na bis bi nga xamante ni mooy jiitu muy le 13 octobre bi nga xamante ni ci la ñu nekk fii ci OCB bi war cee ànd ak ku mel ni Mballo war cee ànd ak ku mel ni Walide war cee ànd tamit ku mel ni sunu yaay ji muy ajaratu Lobe Ndaw muy bis boo xamante ci àddunaa koy waaj Sénégal di ko waaj euh, balaa ñuy sori damay nuyu sama yaay booy laaj ko euh, naka lay waaje bis bi waaw alhamdulilah rabbil alamin bismillahi rahmaani di leen sant yéen xale yi surtout yow Karbala mee parce que fan yi yëpp mu ngi ñëw sama kër boole leen ak gor su baax si Njaay Taala mii yàlla na nga dund sans ordonnance san ordonnance ñëw wax ma affaire bi ne ma dafa am lu ñuy bëgg a def moom moo ñu booleeg yow xamuñu woon sax na daj ci lii nga yëngu ma ne ko waa banque ci yëngu waaye xam naa am na ñoo xam ne umpale nañ xamuñu ko mu ne ma léegi ñoom dañuy da ngeen di ñëw dem ñu laase waale leen comme ëllëg. bu soobee yàlla affaire yi daal mën naa bañ a yem fii ku leen soxla ah ngeen dem defal ko yu baax rek. acca gis ngeen nag maa ngi toog ak kenn euh, ci membre yi nga xamante ni ñoom ñoo waral bis bi ndax euh, bis bi kar balaa mu ngi ci ànd ak waa ATS ñu bokk euh, li nga xamante ni moo di liggéey bi ma toog ak nag porte parole ATS moom it mu war a yaatal ci li nga xamante ni moo di bis bi le 25 décembre ak le 13 octobre bi nga xamante ni ci la ñu jëm mbay ginnaaw ba ma la nuyoo ba noppi lan nga ñu mën a wax ci bis bi. waaw xaarim dama naan ATS wooteete na aussi ak Kaba production du yomb yàgg nañoo woote événement bu mag yaakaar naa ni bi dafa extraordinaire dafa jafe ndax la la ñuy woote Cissé Dongo Sicap Mbao yaakaar naa ni succès la ndam la pour téeru Sicap Mbao ak jeune Sicap Mbao ak ñi nga xamante ni ñoo yëngu Sicap Mbao dafa jot àdduna xam ne dañoo mun a ñaw kon mu tegee Cissé Dongo Sicap Mbao dañ ciy woo àdduna yëpp di si ànd seeg El Vision télé bi nga xamante ni moo ñu sagal suñu événement yëpp moo ko couvrir macha allah yàlla yàlla def ko muy télé bu mag a mag fi ñuy dégg Bougane yàlla mën na ko mën ngeen faa àgg incha allah di woo Sénégal yëpp àdduna yëpp bàyyiwuñ kenn fépp fu téyeeg bu mag nekk ñu ngi lay invité si boo ñëwee nga xool le jour si nga xam ne Sicap Mbao lépp lu téyeeg di am si àdduna dañ cay war a jot c'est parce que ay ndaanaan ñoo fi nekk bis bi nag du bis bu tuuti bis la boo xamante ni ñi ko def sax ñi koy organiser sax dañoo mën a ñaw waxuma laa ñi siy défilé du bis boo xamante ni maanaam ndaanaan Sicap Mbao ku yow mi koy central sax di étoile couture yaakaar naa ni ku ne xam na Xaadim Gueye di ndaanaan bu mag a mag porte parole mbay VIP àdduna yëpp xam nañ ko bëgën couture wax see bokk Serigne Diop Jib Mbay du lu ndaw ndax Sicap bag nay punkal yoo xamante ni war nañ leen a wane si télé bi pour àdduna xam leen kon dañoo bëgg ñëpp waajal ko comme ni ñu koy waajalee mënul yomb OCB nag moom yoo xam nga sama jukko ku ma fa dëgg nee massa ginnaaw buñ sante yàlla jull si yonent bi di sant suñu waajur ba pare xam di sant sama sëriñ sëñ Cheikh Oumy waaw bis bi dañ ko waaj rek comme ni ñu doon waajee yeneen bis yi ànd si tamit ak ñu doon àndal ATS ak mbaalo ak euh, maire Lobé bii nga xam ne suñu dëkkandoo la ànd seeg waa Ligue 2 ànd seeg waa El ñu couvrir lu ñu ko dañoo def bis boo xamante ne nii ciseau door lañ organisé ciseau d'or bi nag woowuñu téyeeru Sicap Mbao kese wala ATS non non dañoo woo commune Diamaguène Sicap képp kuy yëngu si ñaw rek ba si kuy ñëwee puso loxo sax woo nañ la concours la bi nga xamante ne dañ koo teg fas yéene muy am chaque année nag si kàttanu yàlla bu si yàlla àndee premier programme bee nekk nii téer bu nek 10 000 francs lañ la laaj inscription nga ñëw bok ci concours bi boko ko inshallah bala allah événement bi di tass dinañ joxe résultat bi fofu disi wo ñep kuma ku ma dégg ak ku déggul ak ñi fi nek tamit xam nga ñoom it ngi woote surtout nak suñu président ATS Aminta mom lañ jiital ci bagage yi xam nga ànd seeg groupe am ATS Lamine Tine Cheikh lay dem Mbay commune bi dal momo kulum juum ba ci yow xaarim waaw di woo ñëpp daal événement baa ngi noonu. ñoo ko déggandoo diwoo woo ñëpp événement baa ngi noonu mais Karbala dafa mel ni journée de lancement yi nga xamante ni moo war a jiitu le 25 décembre bari na. bari na waaw. waaw mën nga ñu ko liman waaw am nañ ci benn boo xamante ne le 13 la OCB soirée sénégalais lay doon ak waa groupe Ngoyaan bi ak Mbaalo ak Waly 2 bu ñu fa jógee am nañ simb bu ñu war a def spectacle lay doon. simb boo xamante ne nekkul comme dàqeeg yooyu noonu non non si biir OCB bi lañ koy defee bu fa jógee dañuy def tànn beer te limaam jaara xam lépp pour waajal bis bi bu ñu jógee si loolu dañuy def kermesse kermesse boo xamante ne tamit dul doon loo xamante ni yëfu xale la non non kermesse bi ñun téer ñooy ñëw ku nekk sa modèle teg ñu façon tirage bi ñu def ku gañe am sa ñaw yóbbu incha allah affaire bi loolu mooy. mu nekk innovation ci bis bi. waaw. incha allah loolu daal lañ fas yéene. waaw bis bi comme ni ko gars yi waxee rek ñëpp waxee rek noonu lañ koy préparé waaw xam nga ATS moom moo moo boot Karbala ñu war cee ànd def Cisso d'or bi Cisso d'or bi war ko def le 25 décembre incha allah bu neex yàlla balaa booba itam ñu jëm ci le 13 wara a bis bi incha allahu rabbi ñu ciy woo kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp waaw kilifa ñu nekk jàmmagat foraay bi ci jiital monsieur le maire Ndofène Fall ñu ngi ko ci woo di woo madame Camara député maire bi di woo Michael Fora di woo Laay Pythagore mu Aminta Pam mooy suñu présidente ATS bi waaw ñu ngi ko ciy woo moom itam képp ku nekk ci autorité bu nekk ci dëkk bi rek ñu ngi la ciy woo di ci woo Arona Fall Arona Cissé président AT ASC diwaan montagne di ci woo ñëpp rek képp ku ci nekk rek ñu ngi lay woo di woo Mama di woo Kiné Mané di woo Khady Sarr ñooñu ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi ñooñu la am ñu ngi woo képp ku nekk ci autorité rek ñun tudd ak ñu ngi tuddul yëpp ñu ngi leen di woo xam ne bis bi seen bis la parce que ñun Sicap Diamaguène Sicap Mbao moo ñu tax a jóg comme ni ko ATS di wuyoo rek ànd suqali suñu métier ak suñu gox loolu la moo tax képp koo xam ne da jóg rek pour def ci rek ATS day jóg ñëw jàpp ci te euh, nu mu tuddati Ousseynou Karbala bokk si ñun bokk ci ATS kon bu xewlee day mel ni ATS moo xewle moo tax ñun ñëpp ñu jóg si sa door bi moom képp ku ko rate rek moom rate nga loo xamul te incha allahu rabbi dinañ ci dem ba jeex te jàmm gën si kàmbaaw daa war a wane boppam chaque jour ni ma koy waxee rek daa war a wane boppa ñun danoo nekk placement boo xam ne dafa war a génn te naqaree génnee te yaakaar naa ATS loolu mooy liggéeyam te yaakaar naa képp kuy jóg rek képp kuy ndaw te jóg rek war a dox ci loolu rek incha allahu rabbi ATS dina ko couvertir ñu jóg ànd ak moom ci loolu ci kàttanu yàlla incha allah. waaw d' abord maa bëggee gaa yëpp xam nga di bëggee waa Air te dañoo def geste bu naaj xam nga jàmm gën si Kambaaw il faut ñu am yii te yii dafa defe naa ni dafa mën a taal secteur dafa mën a taal secteur léegi affaire yi daal euh, ñu ngi koy sante Kalbara quoi ñu ngi koy sante Kalbara parce que yi muy def nii am na solo ci koñ ñun nag sëñ sëñ Birame Gueye Kewé Ewa jaañ mooy suñu maam kon Kalbara lu mu ñu boole dañ ci ñëw taq répp yàlla dafa def man lu ñu ma lu mu fa ñëw xam naa li may def te macha allah maa ngi gërëm nag El Hadj Vision Bamba yow maa ngi lay bégee. Euh, ba tey ma toog ak kenn ci téer yi nga xamante ni si ñoom ñoo war defilee défilé ci bis boobu noonu muy le 25 décembre euh, ci ciseau d'or bi nga xamante ni moom moo war a am euh, fële ca terrain basket bu jàmm gën Sicap Mbao Serigne Diop ginnaaw bu ma la nuyoo ba nopp naka ngeen di waajale bis waaw Bamba ñu ngi lay fay bis bi ñu ngi koy waajal man ak sama moroom téer yëpp yamul ci jàmm gën Sicap Mbao banlieue bi lañ woo waa ville lañ woo fépp fu téer nekk yor ciseau ñu ngi lay woo man nag ma nekk ci kenn koo xam ni maa ngi tudd Serigne Diop ñu gën maa xam ci Tawfekh Couture le 25 décembre daal bu soobee yàlla du yomb ñu ngi koy waaj te kenn ku nekk tamit yaa ngi koy waaj muy ñi ñëw ak ñi ñëwul ñu ngi koy waaj te dañoo bëgg bu ñu fi jógee chaque année muy am te ñuy ñaan yàlla chaque année muy gën di riis di gën di neex di gën di saf daal mu nekk innovation bu mag a mag a mag euh, ñu organiser ciseau d'or muy euh, la première fois fii ci euh, Diamaguène Sicap Mbao ay doomu Diamaguène Sicap Mbao organiser ko lan nga ñuy wax ci loolu waaw dafa dañ ko yéex a def sax ndax gaay yàgg nañ koo bëgg di def ndax euh, talent bi mi ngi fi xam-xam bi mi ngi fi yéene bi mi ngi fi fit bi mi ngi fi ambition bi mi ngi fi te bu soob yàlla ñu ngi koy waaj te le 25 décembre bu soob yàlla ku ñëw di nga xam ni gis nga aar gis nga sañse gis nga daal lu lu lu lu dal sa xel pour ëllëg loo mën a soxla ci banlieue bi nga xam ne mi ngi fi daal salaamaaleykum sama waa kër nuyu naa leen di nuyu waa groupe bi yëpp di nuyu gars ni si jàmmoo di nuyu sama gaay cameraman yi xalé yi paré yi di nuyu Karbala di nuyu a sama doomu nday di nuyu Serigne Diop di leen wax ni bis bi bis bu reuy la diko wajj le 25 décembre xalé yépp nañ paré téré yi nañ paré ñaw lu rafet gaay solu woné sen bop ndax ci kambaaw fi fa am ay jeune talent yu fi nek te dañu wara wara wani sen bop paré gaay tamit nek ay ndaanaan yu di len ñaanal yalla ñu yalla def li mu nek grand théâtre ñukoy def bis bu reuy di ñaanal gaay di ko waajal di wajjal gaay effet bu reuy te ñu gaay yëpp nañ pare fofu dina wàcc kon su ko defee asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziare di leen baal wax di leen wax ne rek ñu ngi waajal bés bu rëy a rëy ñu ànd ceeg euh, Karbala mu dénk ñu benn mbir boo xam ne ñu war cee ànd suñuy mag ak suñuy nijaay di wax ne rek euh, jour bi incha allahu rabbi mboolem teyri ci bokk ñu nga xamal ne affaire bi du yomb jury ñoo ko yor di waxtaan ak ñoom ku mel ni lamin Anne Lamine euh, Aminta Pam. ñooy seetu wàllum jury bi mu am benn styliste buy jógee Dakar moom mooy gérer affaire bi mboolem téer bi ci bokk nag ñu ngi lay wax ne incha allahu rabbi dinañ la jox benn PV boo xam ne euh, heure bi ngay dugg ak heure bi ngay génn ñu ngi wax ne tamit défilé bi ñaari modèle la ñuy défilé ñaari modèle yooyu noonu yaay indi say mannequin ñaari mannequin heure bi ñu la jox nga respecté ko ak heure bi ngay dugg ak heure bi ngay génn euh, dina am ay jury ci jour bi tamit la ñuy joxe. Euh, Siso d'or bi incha allahu rabbi ñu ngi ci woo ñëpp nag di ndokkeel Karbala di wax ne yàlla na ko yàlla eggalee bés bi ci jàmm ak salaam salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum ñu ngi leen di siyaara di leen nuyu ku ci nekk sa wàccuwaay di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu gudd fan ak wér may ñu fekkee ak tal yaakaar naa lépp lu doom aadama di def da ci war a mën a jiital fekkee ak tal yàlla ñu yàlla may fekkee ak tal waaye ñuy préparé bis bi nga xamante ni mooy bisu seenu Karbala mu nekk six heures d'or ñëpp di ko préparé culture di ko préparé aussi ñuy présenté wu di xamal gars yi ne euh, président organisation mi ngi toog di préparé bis bi nga xamante ni mooy le vingt cinq décembre ñu ngi ci woo culture di ci woo tamit dëkkandoo yi di ci woo tamit mbokk yi di leen xamal ni tamit bés bi dina wuuteeg yi paase dina wuuteeg yi paase lool lool parce que bis la boo xamante ni xam-xam da ci war a génn bis la boo xamante ni yar da ci war a génn bis la boo xamante ni grand frère petit da ci war a génn ku ci nekk rek na def moromam ni boppam ñu xam ni kaf la ree la andi xam-xam bu sell indi xam-xam bu set indi wax ju teey indi wax ju dal waa ñu xam ni suñu bis la te tamit soriwuñu ak ku ko munti jariñoo tamit suñu biir lay doon kon nañ ko waajal 25 décembre xam ni bisu ndaw la bisu xam-xam la bisu jariñu la di ñaanal ñëpp jaamu tamit ñu koy waaja lu baree bari di leen xamante tamit staff bi ñu ngi seen ginnaaw am na ñeneen ñu waroon a teew waaye amaana yite yi ñoo leen téye ba mënuñoo teew ñu ngi ñaanal tamit suñ yaay ji nga xamante ni day dundal aada di dundal aar muy ngoyaan nekk loo xamante ni musique bu neex la musique la boo xamante ni démb la te ba tey da nga koy déglu mu mel ni tey la ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan lépp lu mu ci yaakaar muy càkkutéefam yàlla na ko suñu borom jox barke yonent bi jërëjëf loolu moo nekkoon suñu xel mu sell ci li nga xamante ni ci bisu Karbala la moom tamit ñu ngi koy ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla na bis bi dem bañ koy feete jee grand théâtre ñu ngi ñaan yàlla bis bi dem ba mbooleem kulli xam-xam di ci teew ci barke yonent bi jërëjëf